ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw am nanu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir dégte leen seen émission yoonu njub ci sunuy gëstu ci tawret gisoon nanu ba noppi ni yàlla woowe ibrahima ngir mu nekk baayu xeet wu bees wu yonent yàlla yi ak musalkatu àddina si nar a soqi ko waaye ba fi nu toll ci nettali bi saara jabaru ibrahima taawloogul te moom ak ibrahima màggat yu kumur lañu woon tey jii nag nettali bu doy waar lanu leen indil ci ndortal nettali bii dinanu gis ñetti nit ñu gane ci ibrahima wante ñetti nit ñooñu ëpp nañu nit kese ndaxte ñaar ci ñoom ay malaaka lañu te ki ci des mooy yàlla aji sax ji moom ci boppam am nañuy xalaat ne yàlla mënula feeñ ci kaw suuf ci bindu nit wante juum nañu te fàtte ne amul dara lu të yàlla yàlla mën na lépp njuba di rekk mooy li yàlla mënta def tey nag fas nanu yéene jàngandoo ñeenti saar ci tawret ci téereb njaalbeen ga ci saar fukk ak juróom ñett nag mbind mi nee amoon na bés aji sax ji feeñu ibrahima ca garab yu mag yu mamre dafa toogoon ca buntu tàntam ca waxtu njoloor mu daldi siggi xool gis ñetti nit ñu taxaw ci kanamam ibrahima daldi daw gàttandu leen mu sujjóot ci seen kanam mu daldi wax ne sama boroom man mi sa jaam maa ngi lay ñaan bu fekkee nangul nga ma bu fi jóg may ma ma indil leen mburu ak ndox ngeen jàngu te noppalu ci ron garab gi ndax ngeen amaat doole doora songaat yoon wi ndax loolu moo tax ngeen ñëw ci seen jaam ñu tontu ko ne nga def noonu ibrahima daldi jël dax ak soow ak sëluwa mu defar teg ko ci seen kanam mu taxaw ci seen wet ca ron garab ga ñu daldi lekk ba ñu lekkee ba noppi ñu laaj ko ne ko saara sa jabar anamu mu ne leen mu ngi fi ci tànt bi ki wax ak ibrahima ne ko ci lu wér bu waxtu wi dellu see déwén dina ñëwaat ci yéen te saara sa jabar dina am doom saara nag nekk ci gannaawam ci biir tànt bi di déglu fekk ibrahima mook saara dañu bare ay at ba màggat saara mënatula yaakaar am doom kon saara daldi ree ci boppam mu ne ak ni ma màggate ndax mënati na am bànneex ci sama jëkkër te sama jëkkër moom it màggat la ne mem aji sax ji daldi wax ibrahima ne ko lu tax saara ree te mu laaj ne ndax dinaa am doom man mi màggat ndax am na dara lu të aji sax ji ci jamono jiil ma la waxoon maanaam bu waxtu wi dellu see dëwën dinaa ñëwaat ci yéen te saara dina am doom ba mu déggee loolu saara daldi fen ne reewuma de ndaxte dafa tiit waaye aji sax ji tontu ko ne ko ree nga kay gannaaw loolu aji sax ji daldi wax ne bàkkaari dëkki sodom ak gomor dañoo bare ba seen yuux egg na ba fi man dinaa fa wàcc nag ma seet ndax def nañu lépp li ma dégg ci ñoom am defuñu ko góor ña nag maanaam ñaari malaaka ya daldi dem jublu sodom waaye ibrahima taxaw ba tey ci kanamu aji sax ji noonu ibrahima jege ko ne ko ndax dinga boole ku jub ak ku jube di rey leen ndax su juróom fukk rekk jubee ca dëkk ba dinga leen reyaale ndax doo mën a baal dëkk ba ndax juróom fukk ñu jub ña ca nekk yamale ku jub ak ku jubadi ba boole leen rey na la jëf boobu sore mukk yow miy àtte àddina ndax du jub rekk nga war a def aji sax ji tontu ko ne ko bu ma gisee ci sodom juróom fukk ñu jub dinaa baal waa dëkk bi yépp ndax ñoom Ibrahima daldi waxaat ne man mi ñeme wax naa ak yow borom bi man mi nekk lu dul suuf ak pënd xanaa ci juróom fukk ñooñu jub su yéesee lu tollook juróom rekk nag ndax dinga tas dëkk bi ndax juróom ñooñu aji sax di daldi ko tontu ne ko su ma fa gisee ñeen fukk ak juróom ñu jub duma ko tas Ibrahima daldi waxati ne bu fa ñeen fukk ñu jub rekk amee nag aji sax ji tontu ne ko duma def dara ndax ñeen fukk ñooñu ibrahima jëlaat wax ja mu ne yow borom bi bu ma mere dinaa ci teg lii su fa fanweer ñu jub rekk amee nag aji sax ji ne ko bu fa fanweer ñu jub ame kon duma def dara ibrahima daldi waxati ne léegi man mi ñeme maa ngi wax ak yow borom bi su dee ñaar fukk rekk la aji sax ji tontu ko duma ko tas nag ndax ñaar fukk ñooñu ibrahima daldi waxati mu ne yow borom bi bu ma mere bii yoon rekk laay wax te noppi léegi su dee fukk dong nag aji sax ji tontu ko kon duma tas dëkk bi ndax fukk ñu jub ñooñu noonu aji sax ji daldi jeexal waxam ak ibrahima dem ibrahima it daldi ñibbi këram ba loolu amee ca timis ñaari malaaka ya dikkoon nañu sodom fekk loot toog ca buntu dëkk ba baleen loot seene mu jóg gàttandu leen mu daldi sujjoot ci seen kanam ne leen samay kilifa maa ngi leen di ñaan ngeen dugg ci sama kër man mi seen jaam ngeen jàngu fanaan fi ba suba teel ngeen xëy jël seen yoon waaye ñu tontu ko bàyyil nu fanaan ci mbedd mi waaye lot gétan leen ba ñu ñëw këram mu ganale leen lot daldi leen defal bernde mu lakkal leen mburu yu amul lawir ñu daldi lekk waaye laata ñuy tëdd góori sodom mag ak ndaw daldi jóge ca gox bu nekk ñëw wër kër ga ñu daldi woo lot ne ko ana gan yi ñëw sa kër ci timis indul na leen fii ndax nu mën leen a xam dañu leen bëggoon a tëdde ndaxte ay góor jigéen lañu woon loot daldi génn ca ñoom ca buntu këram tëj buntu ba ci ginnaawam mu ne leen samay mbokk maa ngi leen di ñaan bu leen def lu bon loolu bu leen def dara góor ñii ndaxte samay gan lañu ñu tontu ko ne ko jógal foofu yow ñu teg ca it ne waa ji dafa ñëw sanc ci suñu dëkk léegi day bëgg teg boppam atekat léegi nag dinanu la def lu raw li nu bëggoon a def say gan ñu daldi song lóot ñëw ca bunt ba ngir dajji ko wante góor ña maanaam ñaari malaaka ya tàllal seeni loxo dugalaat lóot ca kër ga tëj bunt ba te ñu gumbaal nit ña nekkoon ca buntu kër ga mag ak ndaw ñu daldi làmbatu bunt ba ba sonn bàyyi ba loolu amee góor ña wax loot ne ko boo amee mbokk ci dëkk bi muy goro mbaa doom ju góor mbaa ju jigéen koo fi mën a am génne ko fi ndax dinanu ko tas seen yuux màgg na lool ba ci kanamu aji sax ji ba tax mu yónni nu ngir nu tas ko lot daldi génn wax ak goroom ya naroon a takk ay doomam yu jigéen ne leen te génn dëkk bi ndaxte aji sax ji dina ko tas waaye ñu defe ne dafay fontu ba fajar xare nag malaka ya daldi lakkal lóot ne ko jógal te nga jël sa jabar ak sa ñaari doom yu jigéen yii ngir bu yàlla tasee dëkk bi ngeen bañ cee sànku ba mu yéexantu nag góor ñooñu daldi jàpp loxoom mook jabaram ak ñaari doomam ndaxte aji sax ji daf ko yërëm ñu génne ko teg ko ci gannaaw dëkk ba ba ñu leen génnee kenn ci ñoom ne ko dawal sa xelu bakkan bul gestu bul taxaw fenn ci joor gi dawal ca tund wa ngir mucc ci dee noonu aji sax ji ci kaw daldi tawloo tamarax ak safara ci sodom ak gomor ndax moom la dogal mu daldi tas dëkk ya yépp ak ña fa dëkkoon ak joor ga gépp ak la fa saxoon waaye jabaru loot gestu mu daldi soppaleku jànjub xorom ca ëllëg sa ibrahima jóg ci suba teel dem ca bërëb ba mu taxawe woon ca kanamu aji sax ji mu daldi xool ci sodom ak gomor ak ci joor gi ba fu ma yem gis saxaar su jóge ci suuf mel ni saxaaru fuur waaye bi yàlla tasee dëkki joor ga mu xalaat ci ibrahima te mu musal loot ci dogalam bés boobu mu tasee dëkk yooyu loot sancoon léegi nag ci jot gi nu dese tey bëgg na nanu jëm kanam ci tawreet ba gis ni yàlla joxe ibrahima ak saara doom ba amoon li mu leen digoon ci saar ñaar fukk ak benn mbind mi nee na ba loolu amee aji sax ji ñëw ci saara ni mu ko waxe woon defal ko li mu ko waxoon noonu saara daldi ëmb am doom ak ibrahima bi mu màggatee ci jamono ji ko yàlla waxoon ibrahima doom ja saara ba doomam isaaxa amee juróom fan ibrahima daldi ko xarafal ni ko yàlla digale woon bi isaaxa juddoo booba ibrahima ngi woon ci téeméeri atam saara daldi ne yàlla bégloo na ma ba ma ree te ñi ko dégg ñépp dinañu reewandoog man mu daldi waxaat ne am naa doom ci ibrahima bi mu màggatee ana ku mënoon a wax Ibrahima ne ko Saara dina nàmpal noonu la yàlla matale limu mu Ibrahima ak Saara bu yàgg Saara mi ñu doon woowe ki mënula am doom jur na doom ju góor ni ko yàlla waxe woon ñu tudde ko Isaaxa liy tekki mu ngi ree waaye du ñépp ñooy bég ci juddub Isaaxa moom la mbind mi wax ne ba Isaaxa màggee am na bés ñu feral ko bés boobu nag ibrahima defoon na bernde gu mag te doom ja ajara mi jóge misira amoon ak ibrahima di ismaila teewe na ko te saara daldi gis ismaila muy fonto doomam isaaxa saara wax nag ibrahima ne ko dàqal jaam bi ak doomam ndax doomu jaam bi du bokk ak sama doom ndono loolu sara wax naqare ibrahima ndax ismaila doomam waaye yàlla na Ibrahima bul am naqar ndax waxambaane wi ak sa jaam waaye nga déglu saara ci lépp lu mu la ñaan ndax saw askan ci isaaxa lay jaar te ci doomu jaam bi it dinaa ci def xeet ndaxte yaa ko jur ba mu ko déggee nag Ibrahima jóg ci suba teel jël mburu ak mbuusum ndox gàdduloo ko ajara mu jébbal ko it Ismaila yebal ko mu dem damu ismaila metti woon na lool ci ibrahima waaye noonu la war a amee ndaxte yàlla won na ko ne xeet wu bees bi ak musalkatu àddina si ci isaaxa lay jaar te du ci ismaila ismaila mi amoon lu wara a toll ci fukki at ak juróom fontoo woon na isaaxa te faalewul pexem yàlla ngir def ak isaaxa xeet wu yaa wi wara indi mucc ci àddina lu xewoon nag ak ismaila ay yi ci topp dañu nuy won ni mu ànde ak yaayam dëkk ca màndigu misra takk jabar ci réewu misra ismael mooy baayu xeetu naar yi ñu nekk it noonu xeetu isaaxa ni ko yàlla waxe woon ibrahima te ba tey am na kujje diggante naar yeeg yawut yi ningeen ko xame mbokk yi jot gi nu amoon jeex na tàkk waaye yaakaar nanu ne yéen ñépp gisaat ngeen tey ne yàlla aji dund ju dëggu ji mooy yàlla ju takku ji mënula tebbi ay waxam moo tax mu àtte dëkku sodom ni mu ko waxe woon te jox ibrahima ak sara yi doom ci seen màggat ni mu ko dige woon bu yàgg jërë ngeen jëf ci déglu bi nu ngi leen di ñaan ngeen def lépp ngir déglu nu njàng mi di ñëw ndaxte bu soobee yàlla dinanu gëstu ci nettali bi ëpp maanaa ci mbirum ibrahima mooy nettalib tabaski kon na leen yàlla barkeel su fekkee ne am ngeen ay laaj ci li jàng tey bind leen ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis ba beneen yoon xalaat leen ci li mbind mu sell mi wax naan li yàlla dige dina ko def lu mu yéex yéex ci xalaatu nit xanaa kay da leen a muñal ndax bëggul kenn alku waaye ñëpp tuub seeni bàkkaar